moom mi ngi mel ne changé wu ma trop lii nag euh, su fekkee sama souvenir yi baax na lii jardin d'enfants Mamadou Ibineta la woon euh, boobu dafa naa lii Mardi Gras la woon euh, man nag comme ni ñu ko gisa rek damay yàgg bëgg yëfu <laughs> yëf yu rafet yu organisé samay parents aussi macha allah ñu leen sant gërëm yar nu si conditions yu baax. photo bi dafa ñëw rek sama xel sax si yar si ñoom la dam euh, yal na leen yàlla yërëm xare leen àjjana donc li day wane nii parent yi depuis ndaw ba léegi musul seen loxo musul jóge si ñun euh, si éducation si taxawaay si comportement euh, fexe ba duñu manqué dara suñu benn moroom duñu ñee loolu nag vraiment photo bi loolu la may fàttali vraiment mu nekkoon jeunesse bu am solo naa musuñu jooy dara ndax waajur yu jàmbar kon nag ñooñu yal na leen yàlla xare àjjana mais photo bi daal vraiment souvenir yooyu la ñuy jox mardi gras la woon euh, mu nekkoon euh, souvenir yu neex macha allah. <laughs> bi fan la nekk. école bi Mamadou Bineta man nag bu ma fay nekk à l'époque mi ngi woon côté zone A mais léegi je pense ni ngi nekk côté côté euh, côté yàlla suren ah donc à l'époque benn tubaab moo ko créé woon madame Faye. ndeysaan moom moo ñëwoon euh, créer école bi fii Sénégal mu nekkoon école bu bu am taxawaay jardin d'enfants bu am taxawaay d'ailleurs euh, vraiment ñu bëri nekk ay responsabilité léegi awoon nañ fa. moo tax vraiment ni euh, ngi si sant yàlla bu baax ndax souvenir yu am solo la si sunu démarrage yu àdduna. kon école bi fii di Dakar la nekk. waaw école nekk mi ngi nekk wetu Baobab rek si côté yàlla suren bi. lu yàlla di daf euh, falaa duggee école waaye tamit falaa jeexale école ndax bi may am bac yàlla su ren laa ko amee euh, moo tax yàlla gis nga ay affaire am te pourtant buñ koy sos mi ngi woon côté ay zone A yooyu mais après le toxu si ñëw dend ak yàlla su ren te foofu ñaari bërëb yooyu joué neen ay rôle yu am solo si sama ci sama formation